ayca euh, tey nag sénégalais yi tey maa ngi euh, Bamba partenaire Bamba partenaire su euh, tëbëg si daan dëgmal damay daan damay dem ànd ak moom ay waxtaan yu le yu yu xarañ si ay ñaw parce que moom yàgg na si ñaw ah xam na code bi ah xam na xam na ay code daal si ñaw waaw Bamba partenaire bi ngi nii waaw Bamba nuyu nañu. Mbaye maa ngi fay. Mhm. di nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp. Mhm. du ñu sama client nekk ci Sénégal ak nekk ci diaspora bi. Mhm. Mhm. suñu nee suñu nee suñu nee ñëw événement ñu ne Bamba événement te suñu suñu xel yëpp ak dañuy xalaat ku mel na yow euh, lan nga ñu mën wax si événement wu bi nit ñi ngi jooy ñaw lu ñu ñi ne xam nga affaire dafa seer te dañoo seerle euh, ba euh, bu njëkk ba dañ daan gis événement ñëw daan jax daan neex nekk nii. ku duggoon heure bii fii danaan danaan da gis doo am sa foo toog mooy problème ren. bon c'est vrai xam nga tu monde bi léegi dafa euh, yu bëri bëri. Mhm. Euh, man boog sama fi mu nekkoon euh, léegi dafa gën a sax dafa gën a yokk waaw pour man ñaw dafa gën a yokk ndax vraiment li ñu fi bàyyi ba tey. Mhm. waaw man boog am naa ful la man lépp lu ma nekk man te gis ma sama bopp ma bàyyi ko woon nga ginnaaw. Mhm. kon nag loo xam ne yaa ngi def ay at. ba tey xam nga macha allah yal na yàlla xeeb dool yi kon nag ah, suñu ñaw boobu mu ngi dox ndax ñun ah, li tax mi dox mooy day def lu baax di ko teg fi ñu ko teg aussi di familiariser aussi suñu client bañ kenn weer boo gisee parfois ah, léegi atelier yi parfois boo demee du mel comme autant di toog coow lu bëri. Mm-hmm. léegi liggéey bi système bi dafa changé. Mm-hmm. ñun suñu liggéey léegi dafa pragmatique. Mm-hmm. di ko jël ci heure def ko ci heure. en plus jaaxul toog bi ñëw. Mm-hmm. Euh, yaa leen livraison fii sama livraison yi sama livraison yaa ngi fii mm-hmm. ñaw bu pare dañu woo borom ñu livré mu dem mm-hmm. très waaw loolu mooy liggéey bi léegi ah livreur léegi système moo changé léegi ñu daan toog naan sama njaam bari xam nga ah. toog ah. la livreur sa kër ah ok soo gisee lii da nga naan ñëw yi doxul kii xam nga téer léegi dañoo kii dañoo xam na téer seerul moo nit moo seer léegi monde moins cher. tey bi si vous noonu jaay exemple. Mhm. donc ngeen di exemple 1000 francs exemple. Mhm. les ñu ngi 2000. Mhm. tu comprends. wëñ bi ma jël. di ko exemple 100 francs. ñu ngi jaay léegi 300. courant bi ñu utilisé. le caméra est 1. le caméra est mi ngi 10. Le kon nag monde bi moo cher. waaw ku njëkk a yokk la ngaa mais aussi. ñu xam leen moo dem lu mu changé changé changé. Mhm. ñii faaw ñu lekk faaw ñu solo. Mhm. Mhm. ah ayca boobu euh, dañ daan préparé tabaski préparé corté mais dañ daan wax Bamba partenaire la mu ñaw créé na lii créé na lii créé na lii ah keneen kay ah ah kii xalifa tel et cetera et cetera mais ren lu tax ah, jamono ay jamono yu bëri yoo xamante ne wanewul créewu leen wanewul leen li ngeen di ñaw kii woo leen dara ah euh, internet bi soo fa duggee duñ ne Bamba partenaire moo ñaw lii te bu njëkk ba nag daan internet bi Bamba partenaire génne lu bees ah kii génne na lu bees xam nga mais ren lu tax léegi affaire yooyu kenn gisatu ko événement yi yéen a ko daan jaay tabax si li li maanaam salañ si tabax si yéen la woon yéen téyeer yi yéen a kat a daan def pub bi yéen la woon. mot tabaski waaw mot tabaski mot korte affaire di neex. su mot tabaski jotee rek da ngay gis ñu commencé dugg si tabaski mais dañ defal ko da ngeen xaw a wàññi boosu tabaski lu lu mais boobu. xam nga boobu ah suñu tolloon boobu. Mhm. boobu ñu tolloon ah. nga xam yaa ngi yaa ngi nii boobu nga xam yow. Ah, waaw waaw am coow bi bëri xam nga. ah, ah bi naan les seuls les troncs vides mhm. mhm. eh, boo coowee ba ñëpp xam la. da ngay jéem liggéey liggéey bu baax. Mm. toog concentré ndax liggéey ànd ak coow bari. Mm. li may wax mooy li ma kon mm. nga xam ne liggéey bi macha allah. suñu mi ngi mi ngi teg mais créé ñaw yi ngeen daan créé. nekk nii xam nga. laa ñëw ah, ak Togo réew ñoo ko initié ko créé ko. ñu def ko àdduna ñëpp nangu macha allah. mais léegi après nag am loo ko defee defaat ko defaat ko day nekk répétition. da koy bàyyi sa sa sa booy booy di ñëw ci ginnaaw. non non pourtant bàyyi ngeen jaga bàyyi mais teewul da ngeen na woon seen site bopp. di def ay ay modèle di ko sànni lancé si si si internet ah, bi mais loolu yëpp ngeen bàyyi ko tamit. bien sûr boo suivee loolu Instagram ba partenaire man sama Instagram man teel

mais mais mais mais bu njëkk ba dañ daan dañ dañ dañ dañ la daan gis dañ la daan gis ngeen a créé ñu ne lii. bamba is ne ko dama bëgg yóbbu ma toos gi. ah dama bëgg yóbbu sa gars yi wala. déedéet du loolu ma xaalis dem ma toos. non non du loolu mais mais ba tey tamit dañuy taxaw foofu si moo tabax si. parce que moo tabax si da ngeen jékki-jékki yéen ñëpp yéen ñi ko yëkkati woon yéen ñëpp ngeen bàyyandoo. loolu da ngeen ko waxtaanee woon wala da ngeen ko da ngeen jékki-jékki rek xam nga bàyyi mu daanu parce que mënoon nañ jékki-jékki bamba génn xam nga jékki-jékki keneen génn keneen jékki-jékki ngi ko génn ah keneen génn bala may si génn keneen mais yéen ñëpp ngeen jékki-jékki rek raarandoo léegi mënoon ngeen gunge nag kenn mënoon na faa des di gunge ñi nga xam ne kenn xamagu leen te bëgg nañ ñu xam ko ah ñu am na ñoo xamante ne dañoo mën a ñaw te ñu ngi si ginnaaw kenn xamu leen. bon xam nga ki mën a ñaw ne ci ginnaaw kenn xamu ko. Mhm. Ah, moo tax si kenn kenn moomu ko. Mhm. ku bëgg a bokk léegi mun ngaa mun ngaa bokk sa talent ñu bi jiitale ñu. dañ ko def. mais la répétition est pédagogique mu ñu nekk ci répété répété répété nit ki boo defee dara maanaam mhm. ba sénégalais yi mhm. ba nga def sa empreinte sa touche mhm. da koy da koy bàyyi loolu xool leneen

mais yéen ñëpp koy yéen a ngi ci la boobu. yàlla pour dire vrai ah bi may defloo sax moom boobu ki la amoon ki la amoon puxus la am puxus. ma mm. ba am showroom. Mm. kon nag kon kon. non non yow yow comme nga ba pare parce que mm. man bi ma bi ma bi bi may gis ay kii daan naa gis soo ñëwee mot dama gi am si gang gars yi topp la bamba géwél yi bamba partenaire bamba partenaire ngay maye fii xam nga gars yi topp la euh, waaw. waaw ah, mais nag ñun moom suñu yàlla ñu sant ah. yàlla. Ah. ñaw ñaw ñaw li gën a tax ak ñu ma toog fii di wax yow si ñaw mm-hmm. man dama am mam natu si ñaw mm-hmm. maa man mam amour amour moom gën a sax ko si ñaw mm-hmm. yaa ah, boo xoolee sax xaalis bi au départ xam nga peut être bi dafay dab ci biir mais bëgg-bëgg bi moo gën a am solo ma yàlla loolu ma yàlla na toog donc bëgg li ma li ma nekk ah, loolu la ah. mais mais mais mais ren yan yan yan yan yan modèle ngeen génnee yan modèle ngeen génnee comprendre nga Eh, parce que gisuma model ci internet gisuma model lan xam nga extra extra gisuma dara quoi. ah, ah. ah mais da ngay dem wala léegi ah. da ngay dem ah, sa site bi nga dugal nga tax ba partenaire. ah ci réseau yëpp nag. Mm-hmm. Instagram. Mm-hmm. Facebook. Mm-hmm. Snapchat. TikTok mais da nga gis. nga nga toog sa kër nga suivre entièrement wala yow mu bay yow suivre suivre lu may nag. ah non ah wala da nga question di pose question rek. non non non non mais mais mais est-ce que yéen ah tamit yéen a ray télé yi tamit. parce que waa télé yi fi nekk nii dafa commencé parce que yen ñi nga xam ne yéen doon dooleel télé yi yéen su ngeen arriéré est-ce que ah télé yi fan fi nekk nii déggatuñu télé xam nga déggatuñu da ngeen a wàññi boosu télé. parce que ku am boutique bu mel nii. yaakaar naa ni war nga dem si télé yi fay leen benn cent cent mille ah pour. télé bi sukkandiku télé waaw waaw dama lay wax waaw fay la benn cent keneen ku su su fayee cent mille keneen fay cent mille ñoom dinañ mën fay employé da nga gis benn fu mu nekk nii télé bu loo ah, benn jeune onze ans du am salaire duñ la fay parce que yen yéen a arrière moo tax yéen sponsor yéen ñi daan dooleel télé yéen yéen a arrière hmm. ah est-ce que ce que tamit fan yee passé doon naa ko waxtaan benn sponsor nee naa est-ce que euh, sponsor yi duñu rëkk commencé rëkk ndigg genre bamba partenaires yi ah état du rëkk seen digg ñuy ñuy ñëw si télé yi comparé di dooleel télé waaw. Hmm. bon xam nga ah, télé télé télé bi moom mooy télé yi ma jaar yëpp. Hmm. Ah, ci samay début jaar naa fa. Hmm. te macha allah ba léegi nii télé yooyu ñu ngi fi. ñoom it yaakaar naa ne carrément seen mbir bu doxul woon. tëj na bu yàgg. ndax nit ñàkkewul fayda nekk ci liggéey boo xam ne da nga liggéey di ci gaañ di ci dee doxul doxu bàyyi. télé macha allah ñu ngi fi ba léegi xam nga ñu ngi liggéey. télé yi wala boog wala boog services yi. Mm-hmm. téewuñu télé yi télé yi ñoom am na seen beneen genre méthode de travail. Mm-hmm. et commande. Mm-hmm. peut être ñoom bu ñu ñëwee ñun day ñëw compenser ñu bokk liggéey ensemble. xam nga ci fula ak jom ak teranga mais télé yi moom kenn mu téye télé yi télé yaa ngi ciy liggéey macha allah pendant des années seen liggéey mi ngi dox je pense ndax bu doxoon ba léegi te ñun. te yi saa ma gisee saa ma xëyee gis ay yu bees. <laughs> télé yi sax ñu jël ñu bees moom kay <laughs> oh, ñu <laughs> ngi ma ma waxal la. déedéet du mais mais non non yéen yéen ba yi. yéen gis naa ci ay télé yoo liggéey. Mm. daaw ñu la fay yow. mais non non TFM daan ma fay. Mm, mais yeneen télé yi daawuñu fay. non TFM xam nga problème xam nga rek dem problème yi fa daan am xam nga rek moo tax ma. ma arrière te delluwaat naa def naa. waaw defaat naa sama soog nag moo tax woon quoi mais man fulla moo taxoon mu jóge fa xam nga ak fayda waaw kay fulla ak fayda man fu ma nekk lu taxaw ma doon wër télé yi mhm. dama dama doon jeex dama doon jeex rek ko télé duñu fay non non jul yaa bëggul tele yoo xam ne duñu fay ay cinquante mille la joxe ay la ñuy joxe ay per fay bëri na ñoo xamante ne ñu ngi si télé yi mhm. duñu fayeeku comprendre waaw fan yi passé jot waaw kay waaw waaw yéen nag yéen a xam ne yéen ñu doon indi xaalis yéen a téye seen loxo moo tax tele yi mënu ñoo fay ankay ah, ankay ah, ah. état dafa war war a rek seen digg ngeen ah. ñëw di dooleel télé yi parce que xale yi jigéen ñi fay ñëw bëgg nañoo maquillé wu bëgg nañoo solu yéen ñi nga xam ne yéen daan yéen a daan ñawal ay ñoom kii ay ñoom mati ay ñoom madoo xam nga su ngeen ko téyee xam nga animatrice yi dootuñu am kii comprendre nga mais mbay ñun état bu baax. parce que ñun on crée des emplois. on crée des métiers. ko jàng da ci xamul boppam xam-xam. Mhm. di ko fay weer mu dimbali yaayam dimbali papaam. Mhm. def naa ko ay xale yu bëree bëri bëri yoo xam ne mhm. ma leen fekk vite. ma jël leen dugal leen sama sama sama entreprise. dañ jàng métier dañ yar ba ñu màgg am ñoo xam ne ba léegi ñi ci mën di liggéey léegi dana dama leen embauché dañ fay ñu fay courant seen kër joxe dépense joxe lépp kooku kay bu bëggee def bu bëggee def di ba partenaire kon da nga yàq ay emploi te nga bàyyi ma liggéey rek. ah mais mais mais télé yi tamit il faut ñu ñu ñu mos tamit il faut nga. non télé yi télé yi la. Ah. ba am partenaire ba am partenaire na ku ne xool nooy toggee sa bopp jinax. Mm-hmm. du noonu. Mm-hmm. loolu laa gëm. Mm-hmm. dëgg la.